soo tët tët tët waji xalibatas seyqi wal muxtaar yaa bi di mbër xii fajal diini ay daanam te ñépp la war warisal xutbi ak maamam te wuutu sa baay waaw waaw jil masaa'iqi fil دون فقر خليفة الشيخ والمختار يا في دمر هي فجل دين أيضا باكو قبل أمداي موقع يا باكو قبل أمداي موقع يا تنسجي tëtë si moo di mbar mbar mi ko jar minal waaw ma diidin kaamilit mbaaram halin wa waaji mbaara jasin aca bugguñu sabar waaw bu muy mexsab bu muy torambe bu muy awaay bu muy fanga laa di li war bu lanu ko xiinal te bu lanu mbal xalifa bi da koy tere waajibal lanu ba booji way way ko si ar musab فاعلا آوى رك يومي دجبا أكو سمر حقيقي أواي إنه مرك أجمعي كي كجر دينار أبدي سقطا فرلين جنبي أواو كجي فاردور تكل من دولاري أكرم بي واو إنه حقا حقا لخير وذرب ريا الله مين في مين لخمني kenn amu ko waaw bu leen xulaat te bu di indi naqar macha allah Babacar sa turandoo la ñuy waxtaane moo tax euh, euh, sa yaram tàng waaye àddina yëpp yëngu ci euh, xam-xam bi nga xam ne ni euh, mooy jóge ci kii ma tuddee professeur maa ngi gis ci internet bi hashtag bi am na ñu bind ne dafa kawe torop waaw niveau bi dafa kawe torop <laughs> niveau bi dafa kawe de xale yaa ngi koy parce xam naa xam naa ne xale yi boo leen waxee Serigne Babacar ci la ñuy gën dégg. Euh, euh, euh, yi nga xamee ni peut-être seen xam-xam yeggul foofu mooy li may wax sànq rek ni sëñ Ahmed mi sañ na ma ko woowee professeur. yàlla na yàlla dëgëral la. fi mu toll tembe nag c'est vrai que ñu bëree ngi bëgg dugub pour ñu jox leen ci addiya yi ak ndimbal yi waaye dafa am sunu ay waajur yoo xamee ni mënuñu leen ñàkk bañ a boole ci guddi gi nga xamee ni moom la jagleel sunu maam Serigne Babacar Sy son papa El Hadj mbay Mbaye moom Amad Mbaye Maodo. Euh, fa mu nekk daanu na ndax sànq ba tey euh, mu ngi àndandook ñun xam naa daañu jokkook moom bu ca kanamee waaye dafa am sunu jur boo xamee ni oustaz Pape Anne euh, oustaz Assane faaw rek ñu jokkoo ak moom di way juru Aziz Ndiaye di Bayaale Ndiaye li ñu koy dégg nag bëriwut waaye euh, euh, la yëngu la ko yënga la ko ëpp doole moo tax mu tey euh, tey mu yëngu ñu jokkoo ak moom ngir rek mu sànni ay kàddu ci guddi gi nga xam ne ni ki ñu ko jagleel ca bëccëg ba tey képp kuy taalibe Cheikh képp ku di jullit yaa ngi am mbégte te yàkkamti woon lool ñu waxtaane ko bu fekkee jàppandi na ci ginnaaw ñu jokkoo ak moom léegi sunu wayjur boobule papa ñu ngi lay nuyu Euh, di la ziar euh, ndokkeel la gërëm la. ci ah, euh, nangul bi nga ñu nangul jokkoo ak ñun tey ci guddi gu exceptionnel bi la nga xamee ni ki ñu ko jagleel da ko fonk ba kenn dootu ko naatable Ndiaye ñu ngi lay ziar. waaw ñoo ngi lay fay. Ndiaye. léegi guddi suñ Babacar. Mm-hmm. danañ ci def suñu. li nga xam moom la yàlla moom la yàlla jox. jërëjëf Ndiaye. man Alaaji Ndiaye ak sama njaboot. Mm-hmm. danañ ci def sept millions. macha allah. ngir yàlla ak Serigne Babacar rek. radiyallahu taala ñoo ngi nuyu nag xalifa général bi. Mm-hmm. di nuyu Pape Malick Sy mhm. di nuyu njabootu Abdou Aziz Abdou Aziz mhm. Al Amin Al Amin sama sëriñ mhm. waaw ñoo ngi koy nuyu léegi man ak sama njaboot jox nañu leen set millions ci guddi sëñ Babacar bi juróom-ñaari millions macha allah sept millions waaw. addiya jar na ko juróom na ko jar na ko. joxe nañ guddi sëñ Babacar ngir yàlla ak sëñ Babacar. macha allah jar na ko papa. bëggoon loolu nag sax. Mhm. affaire bi dama xaw a bett rek. wallaay wallaay wallaay waaw. ñoo ngi nuyu Pape Hann moom. ak Pape Cheikh moomu toog. jërëjëf njaay ak Sam mi nga xam ni moom mi ngi jóge Tivaouane. jërëjëf. jaarale fii sama kër mi ngi dem. macha allah. sama oto moo ko indi foofu sax. jërëjëf Ndiaye. daal lañu leen doon wax. jërëjëf Ndiaye. dana am sama dana am sama njaboot ku leen. wax nañ ko ni mu koy séparé. incha allah. ni mu koy séparé boobu moom dina leen ko wax. jërëjëf jërëjëf. waaw ñoo ngi sant ñëpp di sant xalifa Sénégal yëpp nag. yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. di sant ñëpp di sant waa rajo bi. jërëjëf jërëjëf Baye jërëjëf papa. Youssou Ndour mi nga xam ne mooy directeur bi sama doom la. jërëjëf papa. ak ñi ci liggéey ñëpp. Mhm. li ñaan ci yàlla yàlla fi yàlla jële feebar bii fi nekk allahumma amin papa guddi guddi gu tedd gi ko tuddale sëñ Babacar jërëjëf papa guddi lay nu xalal sëñ Babacar nag lu ne na ko hmm. ku ñaan rek mu am ko am ndax ba France jàqee ci seen guerre ba moo le moo ñaan te guerre ba guerre ba jeex kon sëñ Babacar na ñaan nañu ñaan mu ñaan ci feebar bi mu jóge fi allahumma amin waaw daal moom laa amoon si lu may wax jërëjëf papa jërëjëf kontaan nañu maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf. ñu ngi lay gërëm bu baax. yow kenn gënu la ci yoon wi waaye sa njaboot it Euh, muy Aziz muy Baye Ale ak Masata mi ñuy laajte rek euh, kenn gënu leen ci donc yàlla na yàlla dëgëral la te yàggal taxawaay bi oustaz balaa may jëlaat bay joxe addiya di jàll ci leneen defe naa jar na gërëm moom Baye Ale Ndiaye. alaaj jërëjëf di sunu wayjur di ko nuyu moom sunu bàyyi alxaaji Ale Ndiaye. Mm-hmm. kenn ku ne xam. xërëm njàmbaarteem ci kër Seydil Hadji Malick fa la bokk ni mu mel ci Serigne Babacar Sy nag moom mm-hmm. euh, moo ko toqantal njabootam mm-hmm. ba ñoom njabootam amuñu sago mm-hmm. ci Serigne Babacar Sy radiallahu anhu waaye dégg nga li mu wax mu ni jël na juróom-ñaari million moom ak ay njabootam Aziz Ala Ndiaye ah, Abdou Aziz nag kenn ku ne xam na njàmbaarteem ah kooku euh, njabootam gépp daal damay bañ a lim di juum waaye Abdoul Aziz yónnee na ma message ni ma. Mhm. sama baay juróom-ñaari million yooyu mu joxe. Mhm. benn euh, séddalikoo na. Mhm. ni mu séddalikoo nag alaja ma wax ko ah. ayca faram fàcce ko. ma wax ko du moo moo gën a wóor ah. mënul ñàkk mu ni ma. nee na nañu jël euh, ñaari million ak juróomi téeméer muy deux millions cinq cent. ñu joxal ko ko alaaj Sambub mii. macha jël million joxal ko ko Babacar Kassé. jël million joxal ko ko alaaji Pape Cheikh Diallo. Ah. Ah. jël million. sama yaay est xam naa tëdd na bu yàgg. man sama yaay yàlla na tëdd. jël million joxal joxal ko jox ko euh, euh, sëriñ Ahmed Fall mu baax mi jël million joxal ko ko Pape An. ah nee na téeméeri junni bi ñu joxal ko ko waa plateau bi. ok Abdoul Aziz daal euh, loolu la yónnee. mooy juróom-ñaari million macha allah waaw loo kon kon xam nga loolu war leer na nañ. jërëjëf kon nu ngi koy ñaanal yal na yàlla yokk ko dëgëral. nee na loolu moom Abdoul Aziz baayam Alaaji Ala jaay ak njabootam gépp noo àndandoo. waaye oustaz def ko hëddee Serigne Babacar. xam naa bu ñu jékkee jékkee caméra yi fulu rek. waaw technicien yi la. ñoom ñu ne dégguñu seen tur. dégguñu seen tur waaw. léegi ah. man. beneen bi mooy alaaj Pape. Ah. ku ñuy wax euh, maanaam euh, bijouterie Serigne Babacar Sy. maa ngi doon ñëw fu nekk ci yéen. ah alaaj Pape. maa ngi doon ñëw ci sama million bi waaye dama rek. ah. <laughs> xale yi dañoo bëgg a. bëgg a bëgg antenne bi waaw. Oustaz àggale na très rapidement waaw Alaaji Pape baal ma de ah, ah. Euh, waa visiteurs yi Serigne Babacar Sy ah, euh, ñoom itam nee nañu joxe nañu téeméeri junni ñooñu yàgg nañ ci euh, def ko hëddiyee Serigne Babacar Sy waaw mu ngi nuyu ñoom ñëpp dokkee leen ajat di jàll nu ngi koy di voilà voilà am nañu mbégte am na ñeneen ñoo xam ni kenn ku ci ne nee nañu ñoom itam dinañu def hëddiya Serigne Babacar ci guddi gi Euh, balaa guddi géej gi alaaj Pape Cheikh Diallo jërëjëf jërëjëf oustaz léegi nag balaa benn technicien di ma ci am di ma di ma ci dil problème léegi man suma million ci barke Serigne Babacar jox naa leen ci téeméer téeméer bi ci des ma mottali ko ci ceeb yi may jënd di ko séddale ci tous pour un bi xanaa faram fàcce gi mat na <laughs> sinon Cissé <laughs> damay ragal mu débranché mu débranché téléphone bi mais technicien yëpp la ñi fi nekk ak ñi fi nekkul ñi tàmbali quartier général bi boobu ba tey donc téeméer bi ce sera pour euh, euh, technicien yi bi ci des pour tous pour un la voilà donc euh, xam naa waaw noonu daal laa ko laa ko laa ko laa ko defee Adja Adja Adja